Merci. Merci beaucoup ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa réew mi yëpp di ñaanal kenn ku nekk ku fi nekk ak ku ne bitim réew at wi ñuy dëgmal doon at bu gën ci suñuy at ba beneen ñëw dàq ko moom it di ñaan kenn ku nekk at wi nga yokk ci lépp muy ci wér-gu-yaram di ci wërsëg li ci jàmm xel mu dal ak jubóog say mbokk bu loolu weesoo dañu woote pour waxtaan ci li ñuy dëgmal muy daje gannaaw ëllëg bi daje gannaaw ëllëg bi li ko waral ñetti ponk la ndax am na daje bu fi amoon eh, ay fan ci gannaaw waaye daje googu daanaka benn ponk moo ci gën a fës bii nag Yewwi Askan Wi ko woote da ko woote ci ñetti poñ yoo xam ne yu am solo la ñu bëgg nag askan wi xam ni fi tol nii ak fi jëm ñetti poñ yooyu day doon xolu xeexu yeewi askan wi poñ yooyu nag dafa dëxëñ lu bari donc liñ ciy wax ci muy titre loolu mandarga la rek genre résumé la waaye benn bu nekk ci biir ay poñ ay sous point mi ngi ci ay tomba ngi ci biir yoo xam ne yu bari la moo tax dafay peeg li nga xam ne mooy yitteew réew mi yittey réew mi poñ bi ci njëkk mooy yorin gu ñaaw gi ñu réew mi ñun ñëpp ñu war a xam ni nag kenn ku ne li ngay dund si jafe-jafe xam nga ko xamoo ko li ko waral mooy bokk na ci li ko waral wala li gën bari ci li ko waral gannaaw ñàkk gis-gis bu leer ci ni ñu yoree réew ci lan moo war a nekk priorité réew priorité réew yi waroon nekk mbay mi càmm gi napp gi ak ñu téye suñu alalu réew ci ressource naturel bu ñu weesoo loolu fexe ba am ay industrie yu koy transformé ñu gis ni eh, fukki at yi ñu weesu safaan wala ñu def boo jël ci yooyu nërmeelu na mbay mi amatul Sénégal bu leen fàttali dañ ñëwoon 2017 Sénégal dootul jéggaani ceeb léegi nee nañu 2030 xaw ma 2000 lan mbay mi nërmeelu na man mii jóge woon nekkoon temps yi ci àll bi baykat yi ma seeti woon yépp ku yàlla may xolu yërmande rek war nga leen yërëm te ñaanal leen ndax sonn nañu napp gi nërmeelu na ndax jaay nañu géej gi ba jën amatul càmm gi nërmeelu na parce que su mbay doxul yeneen ak yeneen doxul industrie doxul ba ñu mun a def ay aliments de bétail ni mu war a doyee ñëpp xam nañ ni dëkk boobu càmm du am li ko firnde rek mooy tabaski bu jotee fu ne la ñuy daw Mali Mauritanie fu ne pour am ay xar industrie amul ci réew mi li fi nekkoon as tuut ci tissu industriel daanaka li ci bëri ndërmelu na tamit kon ñu ñëpp dëppoo nañ ni Macky Sall lajj na parce que yooyu bu doxul mënoo jox ndaw ñi liggéey munoo fexe ba réew mi moom boppam ci li muy soxla ci li lekk ak li muy jëfandikoo moo tax jafe-jafe yi tar loolu amu fi waaye safaan bee fi am tubaab yi ndax ko rek naan ko tabaxal ay ay yoon tabaxal ay stade tabaxal ay terrain parce que ñooñu yooyu leen arrangé ñoom suñu économie taxaw dëgër arrangé wu leen lépp lu ñu mën a jox liberté ak indépendance arrangé wu leen moo tax dañuy lebal xaalis ba pare joxoñ ñu fi ñu ko war a dugal. foo xam ne ñoom seeni entreprise ñoo ci mën a am li ñu bëgg alal gi yëpp dellu ñun ñu deseeg bor bi moo tax inauguration yu bëri na de te neew ma baaxut waaye am na lu ko waroon jiitu am na lu ko waroon jiitu te lajj nañ ci kon boo génnee aspect boobu nga xam ne mooy ñàkk gis-gis bu set bu sell bu méngoog soxla réew mi ñaareel bi nga xam ne moo waral coono jafe-jafe sénégalais bu ne ku ko xam ak ku ko xamul ndax léeg nit dina jàmbat ab jàngoro te xamul lan moo ko waral yow taximaan bi lay waxal yow charretier bi laay waxal yow gone gu yor muto jakarta yow sama yaay ji di jaay gerte caaf fii ci bopp koñ bi yow nappkat bi yow élève bi ba ci yow médecin bi intellectuel keneen ak keneen seen jàmbat bokk na ci li ko gën a seeni jàngoro bokk na ci li ko gën a waral mooy dërëm gi waroon dugg ci réew mi ay nit damm ko seen poos jàllale ko mu dem feneen moo tax loolu ku ci amul yëg-yëg rek ba mu jaral la nga takk sa ndigg yow xamoo réew mi lu ci nekk amul lu mat a xeex lu weesu loolu réew yi nee naa leen keroog foofu la ñuy gënante foofu la ñuy ëppalante am na réew boo xam ne ministre bi fa nekk carte bi ñu koy jox carte bancaire bi ñu koy jox pour liggéey bi bu demoon tey restaurant añee fa ba pare ñu ne ko 30 euros nga war fay mu jël carte boobu fayee ko ëllëg mun na ci am problème bu koy bu kaso fii nag ay milliards la ñuy wax te dérangé wul kenn loolu mooy premier poñ bi nga xam ne moo ñuy dajale gannaaw ëllëg ñu bëgg sénégalais yi am yëg-yëg ci lii lii du mbirum kenn de. wax dëgg yàlla ñun ñi fi toog ñëpp amuñu alal de waaye ñoo ngi sant yàlla jàpp naa ni am na sénégalais yu ñu tane tuuti kon bu ñu wootee wootewuñu suñu wooteeluñu suñu bopp ñaareel poñ bi nga xam ne moo tax ñu woote mooy lii nga xam ne senegal amoon na ko ci démocratie te ñëpp xam ni dellu na gannaaw ñëpp xam ko amul ku mu réer mel léegi rek bi ñuy def conférence bi maa ngi liir euh, au commissaire xaw ma la Nations Unies mu ngi bind wax ni nañu bàyyi Pape Alé Niang ci ni mu gën a gaawee ministre affaire étrangères tontu ko ci saa si ndax moom dafa def tweet naan ko loolu amul ak justice bu indépendant rek seen wax yooyu ñuy jaay tubaab bi rek kooku tontuwaat ko ne ko non seulement nee nañ ma santeem fi mu ne nii mu ngi ci xottu gerte waaye li tax ngeen jàpp ko. dafa waroog ay convention yoo xam ne Sénégal bind signé na ko foofu la ñu toll ñi ñu doon dem jaay sax naan leen Sénégal opposition bi moo violente opposition bi ñoo respecté wu république bàyyi nañu ñu duma opposition bi ñooñu sax léegi xam na ñii ñoom ñoo violent ñoo dul démocrate ñoo respecté wul les te li ci gën a garaaw nag mooy attekat yi gis nga tey opposition Sénégal société civile Sénégal journaliste Sénégal euh, euh, nu mu tudd influenceur Sénégal seen adversaire du Macky Sall de suñu adversaire bi gën a mag mooy justice léeg-léeg soo ko waxee ñu ne bul maasale parce que am na ay magistrats yoo xam ne wax dëgg yàlla néeg nii man leen waaw am na waaye ñoo ñu ne ci biir sax te xam injustice yi am ci biir justice ni muy doxee te koo ci wéetal mu mu ne la xam nañ ni mu demee dafa jaadu ñooñu addu parce que dénoncer lu dul dëgg ñëpp la war tey ñun suñu adversaire du Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar xam nañu duñu seen morom ñoo la ko gën a xam kuy xam suñu adversaire du APR APR a gën a xam ni duñu moroomam dara warul ko lu dul réew réew mi leen woon gannaaw askan wi leen woon gannaaw te jublu ci ñun waaye Macky Sall justice la jël am nu ko monté ci ay postes yoo xam ne ñëpp xam nañ ko ci ay juge d'instruction ci procureur de la république ak ci ñeneen ak ñeneen ñu mer noonu cour suprême ne leen nag ci yéen laa yaakaar masalan tey buñ doon dem élection daanaka sénégalais dinañ ne kan moo war a mun a dem élection tey kan moo war a mun a dem élection tey te lépp nag justice dañuy instrumentaliser gannaaw bi ñu modifié code électoral ba dugal ci lu ci nekkuloon ni léegi ku am condamnation même avec sursis munoo nekk candidat ñu ne léegi nañu xool nu ñuy utalee déccee benn kayit buñ ci paree ñu ne nañu xool nu ñuy utalee ay dëmbut benn kayit un deux rek kenn ne daf maa diffamé wala daf maa xeelu ñu ne ah condamnation avec sursis mëna soo nekk candidat justice mooy principal problème mu réew mi président union des magistrats bu ñu waxee mu jóg fëgg dënn waaw bi ay ministre Macky Sall taxawee xas of nag ne par Pastef la ñu bokk parce que couleur yi xas waa cour de comptes parce que génn nañu rapport lan moo gën a garaaw lool Cheikh Tidiane wax na ko léegi ana union des magistrats wala union des de Macky Sall lañu moo ne tey su ma paree conférence de presse boo moytul ñu génn communiqué principal problème mu Sénégal justice la te chaque jour ma ne magistrat yi ci réew mi ngeen dëkk moytu leen luy taal réew mi moytu leen yuy lay fitna te bi ngeen di waat da ngeen waat ne di ngeen rendre la justice au nom du peuple sénégalais ñaata nit ñoo fi taxaw ne rey leen Ousmane Sonko. procureur da leen woo lan moo gën a garaaw loolu cim réew Ousmane Sonko yor ay mbokk yor njaboot jiital kuréel goo xam ne tey bu ne woon régler leen problème kooku boo moytul du fanaan kër lan moo mën a gën a garaaw loolu ana procureur de la république mais tey lan lay def te li gën a garaaw mbir mi dootul justice ah jëlal kaaw Pape Alé Niang Pape Alé ñoom ñoo waxtaan ay avocat am ne leen wax leen ko mu d'accord ni dootul wax ci mbir mi bokk boole dossier ak force de l'ordre yi ku xam Pape Alé Niang xam ni ku am personnalité la ku am caractère la bi ñu ko waxee dafa lànk ne duma ko def ay mbokkam ñëw wax ay avocat am wax ñi ko jege ñëpp wax nit ku nekk am na looy maye nit ku nekk am na looy maye sinon rek doo nit mu nangu loolu ñu signaloo ko kayit yóbbu ko te biñ koy wax dañ ko ne kilifa gi mag gi la ñu waxal nee na boo defee loolu ñu bàyyi la mu def loolu ba noppi yóbbu ko ñu yóbbu kayit bi dugal liberté provisoire procureur ne du ma ko joxe kan mooy procureur si su dee magistrature am na koo xam ne mooy Macky Sall mooy procureur ndax moo dépendre ci Ismaïla Madior Fall bi dépendre ci Macky Sall xam nga loolu mooy essayer humilier nit toroxal nit pour wax ni gis ngeen il s'est déculotté ab julli dina am xol bu mel noonu te APR bi fi toogee ba léegi en la ñu nekkee nit ñi dem ci plateau yi di wax lu bon ci nit ñi di saaga nit ñi di dugg ci waxu waaso waxu xeet waxu diine li APR ji ci réew mi bis bu dalee seen kaw dinañ xam ni yàlla yàlla nelawul gëmul li ñu jàpp bari na te teguwul ci yoon tey ñu ngi wax suñu ñaari député yi nga xam ne député yeewi askan wi la soqe ci parti pur am seen immunité gis ngeen ni mu demee waaye balaa ñooñu ñaata nit lañ fi jàpp kiñ ci mujjee jàpp mooy Fadilou Keita bi nga xam ne dafa sës ci man doon organiser nemmeeku tour Sénégalais dañu war a xam ni kenn ku ne fi ne nii mun nga xëy suba suba suba te sax su doon dañ lay convoqué léegi convoqué te ñu dañuy enlever. comme jamono gestapo da ngay jékki rek oto taxaw ay ngandim nit jël dugg yenn la dugal ci biir oto ñu yóbbu la ku fiy posté Facebook xamal ni sa prison mun na cee xaj ku ci dem ci plateau wax xamal ni sa prison xaj na ci foofu lañ toll ci Sénégal ñu jël benn dispositif bu am solo teg ko nag muy surveiller di dugg ci groupe WhatsApp bi ñu xool nit ñi di wax ak lu ñu waxul di ci jàpp ay nit di tëj bis bu nekk. loolu ba kañ lañ koy seetaan donc loolu di ñaareel boo xam ne tey compté nañu lu ëpp vingt six xam vingt sept nit yoo xam ne ay prisonniers politiques lañu ñoom Cheikh Omar Diagne ñoom Karim ñoom Papito Kara ñoom Ousmane Diagne nga xam ne nit a bind sa texte nga dugal benn émoticône daa di reetaan ñu jël la yóbbu tëj kaso loolu yëpp a ngi am fii ci senegal kenn du ci àdduna duñu xaar lu ñu leen ne opposition sonn na métti na fipp nañu nga dégg intervention yi nag jàmm gën ay nangam nangam et cetera et cetera ñetteel bi nga xam ne moo ñu tax a jóg mooy réew mi sonn waa réew mi sonn nañu léegi am na ko wax ci ceeb bi mais noonu la amee ci lépp parce que li ma wax mooy premier premier bi ma wax ku lajj ci nañ gis-gis ni ñu yoree réew ak lan mooy priorité réew mi mënatoo am maîtrise ci dundu réew ma te su doon sax day métti nga am ma ne bàyyi naa dara barki démb damay xool benn pays européen xaw ma Italie la xaw ma Suisse ne TVA bi taxe bi nga xam ne mooy nekk ci yenn produit yi nga xam ne moom la nit ñi gën a soxla bàyyi naa ko léegi parce que liy gën a cheral produit mooy taxe yi ci nekk boo jëlee carburant bi lu ëpp 60 pour cent ci carburant bi ay taxe la ku bëgg a dimbale askan da naan a ah, dinaa xool nu may bàyyee lenn ci taxi yi man waaye yaa ngi yokk taxi bëgg njëg yi wàññi teew doo produire dara sa dëkk looy wut da nga koy jéggaani moo tax njëg yi du mus wàññeeku fi rek Macky ngi fi te 2023 bi dina metti lii lépp nag moo tax ñun ñu woote di wax nag ni ndaje bi dañ cee woo ñëpp ndaje bi ñun duñu ñoo xam ne dañuy organiser ndaje woo ci ñëpp ay kilifa ñëw ñu neen du ngeen fi jël kàdd nañuy ormalante di respectante ndax ku fi woote boo amee mbooloo dafa fekk ñu wooteel la ku fi woote am na ñoo xam ne xam nañu mënuñu dajale cent personne suñu wootewul woon kon nañuy respectante fii Sénégal yàgg nañu fi daje ci ay mbir yoo xam ne intérêt réew mi yëpp la fii place de opposition bi yëpp nekk fi société civile bi yëpp nekk fi ku nekk jël kàddu wax ndax ku fa ñëw rek am na lu la fa andi wala am na ku la fa andi te kenn gënu fi kenn nag kenn gënu fi kenn gisuma lu fi nit def ba war a tax gën nga nit ba naan ko fii doo fi waxee man maa fi waxee nun suñu ndaje ku fa ñëw di kilifa dinañ la jox kàddu nga wax ak Sénégalais yi parce que loolu mooy orma loolu mooy respect ndaje bi it dañu ne dafa dugg ci cycle. te foofu laay daanele la ma bëgg am na ñoo xam ne léeg-léeg ñu woo ñu rëccu ne lii lépp ñoo ko teg suñu bopp ndax daaw jéeg bañ ko jekkoo ba jekko dañ ko waroon doggali benn yoon saa su ne nit woo ñu wax ñu ko nun dañoo foogoon ni am na lu mu desee ci nite moo tax bi ñu ñaanee it ñu nangu parce que léeg nit xaw a bew nit xaw a bew ba teg sa bopp firawna ana rabbukumul aala loolu day am nit dem ba teg ni moom ñi ko wër ñépp nag naan ko yowa ngay jàpp di tëj mu yomb jël ay leader politique tëj leen mu yomb jël ay activiste tëj leen mu yomb ñu ne la yomb na yowa ba keroog nag nga mbëkk mur waaye dañuy jàpp ni nit bu beew ba mbëkk mur bu ko yàlla mayee mu mucc ci loolu dina ci am lu mu jàngat ba soppi doxalin loolu taxoon ñun ñépp ñu ànd nag ne nañ ko nangul loolu comme ay kilifa jaar na ci waaye njuumte am kilifa waaye njuumte am na ci ndax bañ ca génnee ba léegi lan lañu gis daw na waajal boppam foo mun a jëndee ji ngànnaay jënd na ko daal di recruter ay nit takk nag takku nag ne léegi foo jaar rek mu jëflanteeg askan wi foofu lañ ci toll moo tax gannaaw bi ma gërëmee askan wi ci lam ñu may le 31 décembre ndax du woon évident de waaye bala ngeen doon xam askan bi lu mu may yeewi askan bi nag keneen woote fii concert de casserole balaa ngeen xam li ñu askan yu may ñu koy gërëmee askan bi ndax fépp la diire ci Sénégal Kédougou Tamba Ziguinchor Pikine Guédiawaye Grand Yoff euh, fépp ci Dakar Saint-Louis Mbacké ba Kanel ay dem nga woon boor boobu amul fu mu riireewul ñun askan wi nu ñu koo sant mënuñu koo jaajëfal moo tax léeg-léeg gis gars yi bu ko bëgg ko soppantal naan ça n'a pas réussi man leen waaw fooyee sa xel neex na fooyee sa xel ak joxe ñu bindal la yomb na waaye bu réussir xam nañu bu réussirul xamul xam nañu bu doon sax lenn tuuti ci Sénégalais yi moo gën def ko rek ñu sant yàlla gërëm leen rawatina nag lañ ci am ñu bëri woor nañ ma balaa mbir mi di am ne ma man daal li may ragal est gars yi sax man leen bu gars yi toppee alhamdulilah buñ ñu toppul ñu xam noonu la parce que nit la ngay def da ngay def sa wàll rek wastu ba mu mat la ci des nga bàyyi ko boroom bi waaye lañu am keroog ci concert casserole ñu ngi koy gërëmee senegal yi waaye leen wax nag ni liggéey bi day door li ma gën a loon de man mooy ma mën a wax senegal yi ni sama xel dal na 2023 dina doon at woo xam ne at bu dal la at wu tey at woo xam ne nun ñëpp dinañu mànkoo ànd accompagner li fi nekk mu jeexal ñu dem ci élection ñi war a bokk yépp bokk askan wi seet ku leen doy ñu ne kii moo ñu doy ñu avancé lii de moo doon sama gént man loolu la ñuy doon ñaan Sénégal moom lañuy ñaan Sénégal sax waaye loolu dafa dépendre ci kenn muy président Macky Sall ba tax ma ne leen nag man de li ma jàpp mooy deux mille vingt quatre du doon at wu mille vingt trois du doon at wu yomb discours yi bëri na te jaratu ko la may wax nag man askan wi mooy nañu takk suñu ndigg ba mu dëgër préparé xeex ak Macky ba ñu ma ma ne nitu fitna laa de parce que nit ñi boo leen toppee ñoo lay yeew jaay la ba pare toog fi ñu toog di commandé. ak askan wi lay waxal rawatina yéen ndaw ñi ndaw ñi parce que ce en jeu un moo ci des wax naa ko fi waxaat ko fi pour ñu mën a jëlaat suñu destin en main waaye nag pexe Macky Sall mooy du ñu egg 24 2024 nu muy def ba casser tout ce qui est opposition avant 2024 moom loolu moo ci loolu la nekk Macky Sall mënul xamul lu dul lu yàlla dogal waaye lu dul lu askan wi seetaan te li fi xewoon 2021 wane na ko moo tax mane ne askan wi man de li ma gëm nañu waajal xam ni dañuy jàmmarloog Macky Sall ak njabootam man loolu laa gëm bu wonee leneen nag ñu fekk ko ci ndax ñun senegal rek lañu am bu wonee jàmm ñu fekk ko ci jàmm bu delloo ba yàlla fëgg xelam mu dellu si xam ni kenn la ci doomu réew mi ñuy 17 millions ñu ñu ñu ñu tàllal ko loxo xool nu ñuy defaree réew mi nu ñuy defee lu gën ci réew mi waaye bu dee dëggatiñu joggatiñu liggéey dañu ñun ñëpp toogaat fi nag waxuma la pour troisième candidature waaye modifié sax constitution bi pour def mandat à vie na xam ni jaral nañu lu ëpp lim ko jaral moo tax may woo askan wi. keroog dañ leen woo ci mobilisation jàmbur ñun lépp lu ñu jàpp ni lii njëriñu réew mi la seetuñu ku ko organiser seetuñu ko woote dañ ci dañuy woon yépp ne leen génn leen tey nag dañ leen woo ci loo xam ne yeewi askan wi moo ko woote yeewi askan wi askan wee ko mën a dooleel te bokk na ci ni ngeen ñuy dooleele mooy saa ñu leen woore man place de l'Obélisque bëgg naa keroog ajjuma ñu am fa rassemblement boo xam ne ah centenaire ñu am fa euh, yow mi yor sa oto yow mi di commerçant keneen ak keneen yéen lépp lañ ci woo ndax xeex bi ñuy xeex yéen rek la mun a dooleel olof day wax sagal na ma xewle naa mu ñëw sagal ma yéen yéen ñu mun a dooleel waaye yéen ñu mun a néewal doole ndax saa suñu defee rek teewaay bi néew. dangay gis ñoom ñu bàkkoo la le lendemain nga gis titre journaux yi échec total nangam nangam bu yàggee nag dina jafe ñu def li ngeen bëgg ci ñun moo tax ñu ne leen képp ku ànd ak ñun képp koo xam ne xemmem nga ñu sax muy sympathisant dañoo bëgg ndaje boo xam ne ndaje bu particulier la samay daanele nag di ñaan di leen ñaan ñoom ñu gore xam nga gore mooy lan xam nañ ni mun nañu toog ba bës ba wala vey ba ñu ne manifestation bi tere nañ manifestation c'est un droit moom mi ngi wër fu nekk di politique naan ay tournée économique yëpp ay car ñu jóge fu nekk ay nitam ñi ngi organiser ay rassemblement naan troisième mandat la ñuy wax lan moo tax saa yu opposition ne dañuy def rassemblement ñu tere nañ ko barki démb barkaati démb wala barki démb ba tey fële ci sama dëkk man ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo ne seen gannaaw ñoo ngi leen may ñuy xëy suba ba ngoon jot ne dañuy manifester te su doon ndaw yeewi askan ñu dóor leen balu fetal bu ñu mujjee manifester ab ay balu fetal lañ ko dóor ba Idrissa Goudiaby ak euh, euh, kii Diatta euh, Mohamed Diatta dee fa tey saa ñu jógee ñun dañuy may ma koy wax nag ñëpp di ko dégg. mun nañu toog ba jeudi suba wala ajuma si suba ñu ne interdit nañu manifestation bi génne seeni char de combat dem teg fa loolu bokkul ci ngor te mënatuñ ko nangu ndax réew mi dafa am yoon dafa am ay charte kon nañu gore ndax léeg-léeg yooyu ñuy def mooy andi fitna bu ñu terewul woon manifestation ñu doon def ci mois de juin bi fii bi ñu tere bi ñu éliminer suñu liste bakkan du ci rot nit du ci gaañu nit du dem kaso ay citoyen yu jóg la dem wax seen naqar ñibbi seen kër lii moo ne woon kàddu yu bëggoon sànni ci mbir mi di leen gërëm di leen sant di gërëm askanu senegal yépp di leen jox daje incha allah ajuma ci manifestation bi gannaaw bu ñu jullee jumaa rek muy 15 euh, heures ba 18 heures ba 19 heures allah jërëjëf Merci beaucoup. La séance est levée.